docteur Bassirou Sarr nekk le médecin chef adjoint district sanitaire de Fatick voilà tey dañ fi ñëwoon au niveau de la mairie de Fatick pour euh, cérémonie de réception des dons de médicaments ça veut dire yi xam ne mairie Fatick moom lay jagleel les postes de santé yi xam ne ñoo nekk ci commune de Fatick ak le centre de santé ak le poste santé privé mu leen koy jox chaque année donc mu toll ci onze millions donc tey loolu moo ñu fi dajale woon man ak euh, la présidente du commission santé action sociale bu mairie bi ak le DAF ak le président commission finance mais aussi les CDS le président du réseau des CDS et toutes les CDS des postes de santé et du centre de santé de la commune de Fatick. donc journée bi tey li ko waraloon juste mooy kay tey ñu ñëw def réception médicament yi mais aussi waxtaan aussi si aussi répartition bi nan lay demee. et je pense que loolu aussi moo tax tey ñu ñëwoon uniquement aussi pour aussi fédérer suñu kóllëre ak euh, commune de Fatick bi xam ne chaque année dafay def wax dëgg yàlla bi ñu fi nekkee ba léegi chaque année dinañ ñëw dinañu woo yekki benn enveloppe onze millions teg ko suñu loxo pour bu ñu demee ñu def ko si poste yi man si dimbali population bi et je pense que loolu aussi day tax ñu man euh, aussi am cawarte si liggéey bi mais aussi remercier aussi la mairie de Fatick si appui boobu noonu gis nañu chaque année aussi appui boobu masul tardé amaana man nga dem si yenn gox wala yenn commune yoo xam ne di nga fa dem toog fa ay at doo ko gis donc bu ñu ñëwee fii chaque année ñu ñu koy defal di ci jàppale donc dañ leen si remercier di si am contentement bu baax et si remerciement yooyu dañ ciy jéetal aussi le maire Matar Ba mais remercier aussi surtout aussi la présidente de la commission santé action sociale madame Oumy Gueye remercier aussi le DAF euh, Aldiouma aussi mi xam ne moo ko doon diligenté ak le président commission finance mais remercier aussi tous les conseils municipaux yi xam ne tey ñoom ñoo valider loolu ba tax ñu mën a jot au moins appui boobu noonu. daal lii ñu ngi koy rafetlu te di ñaan yàlla aussi garab yi nga xam ne moom la ñuy joxe aussi mu mën a servir à la population je sais même que maire bi il a bien compris que ne la la santé est une compétence transférée moo tax chaque année mu koy def te lii aussi dina mën a vraiment tous les postes de santé de la commune. di lancer aussi un appel à tous les aussi du district sanitaire de Fatick muy le maire si euh, nga xam ne tey Fatick ñu koy def ñoom aussi ñu mun a suivre les pas de la commune de Fatick mun a jàppal aussi les CDS en tout cas à Fatick moom on ne se plaint pas parce que chaque année daal on a les médicaments à te loolu dañ koy rafetlu di rafetlu aussi li nga xam ne chaque jour daal mi ngi koy def en tout cas merci beaucoup jërëjëf. mu nekk nag une enveloppe de onze millions euh, médecin chef bi répartir ko nii donc dama ne du gulet loolu chaque année la mairie de Fatick daf koy def. joxe les fonds de dotation surtout à temps wax nañ ko léegi mairie Fatick dafa nekk rare mairie yi nga xam ne loolu chaque année daf koy def boole si sax yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla daf ko si boole euh, toujours ma naan santé et sociale dafa nekk euh, deux secteurs prioritaires de la commune de Fatick euh, def na fonds de dotation yi nii day joxe aussi des carnets de mutuelle de santé donc loolu aussi dafa nekkoon une enveloppe de cinq millions bi nga xam ne joxe nañ ko fan yële passé formation bi nga xam ne chaque année dañ koy def pour pour former les acteurs de la santé de la commune de Fatick. donc loolu aussi su amee il faut ñu remercier ko aussi le maire de la commune de Fatick monsieur Matar Ba ainsi que les adjoints au maire et toute l'équipe municipale bi nga xam ne wax dëgg yàlla ñooy voté budget bi ànd si ba loolu am. def nañ répartition bi sans problème te wax nañ ne dinañ ko utiliser niñ ko war a utiliser médicament médicaments surtout nag si am surtout volet social bi nga xam ne wax dëgg yàlla dañ koy. dañ koy jox ñi nga xam ne daf dañ néew doole.